wala suñ xalaatee saaru suuda. ma dem ngeen suñ tamit ma dina la. xam su aaya bi juróomi aaya la. allahu akbar. laa ilaha illallah. allahu akbar laa ilaha illallah. qul a'udhu bi rabbil falaq ak qul a'udhu bi rabbin naas. ñooñu baax leen watam. wàcc na ba nga xamee ne. nabi day ibn asam benn yowoon su dëkk ca Medina dafa fajoon yonent bi de ba yonent ko xob sallallahu alayhi wa sallam faj na ko ñëw ci bëkk néegam di ko daawat Zayd ibn Sabit ñaan ko kawar yonent bi yonent Zayd ne ko dama koy barke doo kooku may ko mu dem faj yonent bi ci fukki tas tas ak benn fas ko ci kawar yonent ba sallallahu alayhi wa sallam nataal melaw yonent bi jam te fukki pusaak den jàpp ay jatam tafle ay tafleem ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam feebar ba mu feebaree ñaari malaaka bàyyi ko ja Jibril ak meneen malaaka ñu toog ci lay jooram ñu toog ci càmmoñam menn malaaka ba ne Jibril lu ko dal mu ne ko dañ koo faj mu ne ku ko faj yonent ngi dégg mu ne Labida ibn Asam yahuud ana faj ma ma nga jotteen sangam seen bani sarwaan yonent sallallahu alayhi wa sallam daal di xool si dina Ali ne ko demal ca teen ba nga wàcc ca loo ca fekk rek nga yim ma ko dina Ali wàcc ca teen ba fekk faj mi ndoxam teen bi sax mi ngi soppeeku deret mu génnee këyit boo xam ne ñu ngi ci def na daal yonent bi def ci fukki pas-pas ak benn jam ci fukki pas ak benn gis naa lii rey ni ko teg ko fi kanam yonent bi de yàlla wàccee yaari saar yi de saaru njëkk wi juróomi aaya la saaru mujj wi juróom benn aaya la muy fukk ak benn laa ji yonent bi jàng rek su sa guddee bu sa këyit ba pas-pas fecceekul boppam yonent daal di yëg itam foofu ci yaramam na ma amee jàmm de fukki pus parce que benn yëpp fecceeku fukki pus ak benn yëpp su jeeku yonent mel ni suñu yewoon nga yewi ko de mu daal di wér moo tax yaari saar yooyu képp ku taxoo ci balaa ngaa tëdd jàng ko loolu ah ma ko doon si yaa kenn du la mën a faj ku la faj itam faj ma dana dañ Moussa Sine yi weddi nañ xabaar boobu ne mënul nekk ndax yonent bi su fekkee ni yàlla mën naa may jabar mu di ko liggéey ba liggéey bi di ko jàpp kon dootuñu am kon rek yonent bi yàlla du ko teg lii man yàlla dafa bëgg waaye bi nga xamee ne moom suñu gën a bëgg sax teg na ko yi moo tax gaar gaar yi àddina yi feebar feebar ci yaram rek dana ko dal ñu dalee ñëpp ci waa àddina waa ak jaaxle waa ak naqat yi àddina yi kooku lépp loo xam ne du laal yonent bi rek lépp luy dal doomu aadama dana dal doomu aadama dana ko dal moom yonent bi ndax loolu amuloon kon ñun duñ mën a muñ waaye nag waaw ñu la mën a dal soo seetee ne yonent bi gën lépp te doo leen def ko doon dal rek nga mën a muñ loolu la ci yàlla jublu tax na ba te sa jabar bi hadis bi wéet wax na ne jabaram lay Aysata waaw mu dee boobu ñu la jëloon yonent bi fekk nañ ko ci ba nga xam ne am na ab diit waaw mun ko booloon jabaram Aysata ba nga xam ne saar yi wàcce na dañ defar di làqu waaw booba la loolu soog a dem ci moom loolu itam du dara sa yonent bi suñu dal waaw doo ko mën a muñ de waaye lépp luy gaar ba xam ne ci yaram ñu ne ci ñoom aadama bi rek la jëm loolu mën naa daal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne li ngay wàññeeku nag waaw wàññeeku ci jëmmam waaw kooku moom yàlla du ko ko teg ba nga xam ne nag ne jabar jabar boobu am ne ba saar yi wàcc nag da yàlla saafara yonent bi saaba yi ñu ngi koy jëm ñu dugal rek ñu dem rek ñu laaj daal dama ñu jëm moom la doon dogal ñu ngi koy déedéet man yàlla saafara ma ma jeex ba bëgg maa jot ci te ba ba tëj ci léegi muy ñaari saa yi bu ñu yoo te ñoo ngi fi rabbil falaq ak la ngi fi rabbil naas ak ñu ci matu bu ñu ko aadum melaw yàlla rek la lamboo bu ñu melalee yàlla ba nga xam ne dara du dugg lu mooy yàlla te balaa nga am xam yàlla ba nga ko ci itam li nga xam ne moom la def mooy mooy mbindee bi bu ci yàlla ji mbindee bi daal mooy tax nga mën a taxaw ci xaqi sara nag nam war ndax ku gisul lu mooy yàlla du gis lu war du gis lu tere foofu xatar la juróom su ma juróom ba mu fay jàll moo tax buñ la waxee yàlla da gisatoo dara lu mooy yàlla mu wax la yaari saar yi nga xam ne mbindeef yàlla yi la la tudde on bi rabbil falaq ñu sari maa xalaqa nga xam ne yàlla kat lu muy nekk moom kenn rek terewut xamal na ay mbindeef su ko defee nga jot ci mbindeef yi ànd ak leer ñu leen gis te doo leen gis ñu jëflanteeg ñoom te doo jëflanteeg ñoom ñu nekk ak ñoom te doo nekk ak ñoom loolu mooy tax nga jox ku nekk àqam moo tax bi ba mu waxee boppam ci saaru jëkk yi ñu ngi wax liggéey yi de kon waxoon aw si ñoom mos la bi rabbil falaq ci borom suba ñu sari maa xalaqa jaayu la mu bind maa ngi mos la ci yàlla mi nga xam ne moom moom suba ci xëy lépp lu mu bind loolu ñu ne lépp kaddu farata la tudd ndax moo dëkk maanaam ñu jóge ñu ngi jóge ci téere yàlla boo xam ne yàlla rek dafa ne leneen nekku fa buñ bëggee gis leneen lu yàlla dañuy dellu ci suba bi dëkk ba affaire bu fajar yi roxo yi jóge ci téere yàlla bu sell ba ñii nag ñu ngi nekkoon ci lëndëm ak ñàkk yàlla rek nekk léegi bët set na ndax ñu gis yeneen mbindeef yi maa ngi gis ne yàlla bi nga xam ne moo di borom suba ci xayma bi lépp luñ bind loolu mbindeef yëpp kat dina amul lu laa wala ñu tëddee xaasate ak ci xay ci biir nga wax xam nga kat bi ak lëndëmam maa ngi gis ne yàlla ci xay guddi ndax am guddi kat yooyu la ci xayu lépp lu yàlla bind waaye ñu jàng ci guddi ndax lu bëri bëri ci xayu ci guddi lañ koy fexe ci lañ dañuy guddi moo tax maa ngi nuyu yàlla ci xayu lépp lu mu bind waaye maa ngi koy nuyu itam léegi ci xayu guddi xayu guddi gannaaw bu lë gannaaw bu mu lëndëmee ndax gannaaw bu mu lëndëmee ba xew ci lay xewe borom fere la passé ak ci xayma jabaraan ka yéen waaye tax lii te noo xam ne ci tos tos maa ngi mujj yàlla ci xayma xayma ay jabar xay jabar yu jigéen yi tax ni ci tos tos ñu ci doom yi labi day indi laatam labi labi fajoon yonent bi ay doomam jigéen ñoo ko doon jàppale di ko màcc la di ko xofle di tax li ba nga xamee ne ña ngay jéem a doon yonent ba nga xamee ne seen jëf mooy sabab ñu doon gën a ñu ci dugg seen bët bi maa ngi mujj yàlla ci ay bépp jabaraankat day màcc ñu tax li wala ñu tax ne aasiti ak ci xayu aji xañaan ila habada ba feeñee kañaanam de maa ngi mujj yàlla itam ci xayu képp koo xam ne dafa xañaan rawat na nag dam xañaanee ba mën a dund ba kañaan nga mu feeñe ko mujj na yàlla ci xayu lépp lu yàlla bind mujj na yàlla ci xayu guddi comme lan demee muslu na yàlla ci xayu ay jabarankat ba nga xamee ne ngay tax li ci seen i paspas muslu na yàlla ci xayu aji añaan ba nga xamee ne kañaanam feeñ na kañaana gën a màgg ci gàtt yëpp moo tax bu ko tuddee doo tudd benn gàtt bi saare saare dafay jeex kañaana ngoog ko xañaan nag amul ci lay xeexat yàlla ñu ngi lay xeexat añaan mooy lan mooy nga mëdët te yow ci yàlla may jaam bi mu dañ ñu ne yow sax doo ko xam boobu dañ ñeetaane ñeetaane dagal na gis na yàlla may sa moromam jaam nga mëdët doon xam lu mel noonu loolu moom dara nekkute rawatina su jëlee ci mbir diine waaye nag soo mëdëtee mu dañ ñu ne yow doo ko am sax loolu nag mooy añaan moo tax de yàlla wax ne bu leen mébét ñu yàlla jox seen lenn moromi jaam te moromam jaam soo ko seetee benn nga fekk ngëneel yi lim lamboo lamboo wala ñoom day ñu ngëneel ngëneel yi ci jëmm ci laaju yii génn jëmm ji laaju ci jëmm ji lu ci yëpp ak saar ak njambaar ak sabe ci bëri ñu taggee nit yëpp bu nekkee ci jëmmi nit li ci bitti nag mooy moom am wërsëg bëri alal bëri doom bëri ay ndimbal bëri ay soppe bëri ay xarit am sunu rafet ci bindee bi soo gisee nit lii yëpp booloo ci moom xel mu mag ñaw am dëgg am xam-xam soo gisee lii yëpp nit nga seet sa bopp yow loolu yëpp amuloo ko ñaara lay set benn nga mébét a meloon ni moom loolu mooy ñee wala nga mébétoon moom mu ñàkk ko eman yow loolu mooy añaan moo tax yonent bi wax ne seetal bul seet kene féete kaw seetal kene féete suuf pour yéen a leen ci mbiri àddina la ndax su dee mbiri àddina ak foo mën a toll boo seetee rek da nga gis ñu bëri ñoo xam ne yaa leen tànn kon doo mën lu may sant yàlla waaye itam foo mën a toll boo seetee ci kaw gis ñoo xam ne ñoo doon tële tuut koy nga daal di xeeb li nga am benn nga ñaan wala nga ñeetaane kon nag ci mbiri àddina boo bëggee dëkk di sant yàlla del seet ñu la féete suuf ah bari na ñoo xam ne man maa leen tane maa ngi sant yàlla bon doo xeeb li nga am da nga sant yàlla am naa ci mbiri diine nag del xool daay man jëkk la féete kaw loo fatlu fatlu soo seetee ci kaw ñu la gën a fatlu suuf bon la ngay mën a yokk sa fatlu rek waaye itam foo mën a toll ci nafa boo seetee ci suuf it ñoo xam ne yaa leen tànn loolu daf lay taayaloo moo tax ci mbir bi ñu seet ci la féete suuf seetal ci la féete kaw ndax ngay yokk ci ci suuf ci mbir bi àdduna nag seetal ci la féete suuf bul seet ci la féete kaw de waaw ndax bon nga mën a sant yàlla aji xañaan nag yaaram ne du du fan nekk fan mukk ndax ku xañaan dafa bëgg a fal yàlla ku xañaan ak ku nay dañoo bëgg a fal yàlla moo tax duñ mën a nekk sang luñ fal yàlla jëmmi doomu aadama yàllaa ko bañ loo toppe moromam jiitu ci kanam mu topp ci du dugg du ko def mukk lu mooy la fa ko waral li ko waral nag soo bëggee mu bañ mooy rek bëgg nga toppe dañ xataa yàlla sax li ñuy bind bind dafa am njëriñ ci ñun maanaam suñu yooyu maanaam suñu wërsëli kon mënuñu la mooy topp ci moom meneen wi meneen meneen moromam jaam na moom it doo ko topp mukk lu mooy am na lu waral lu la jaral nga topp ko su loolu dañu rek toppee nga daal di lañu bon nag yàlla may jaam bi teewalam nga bëgg mu dañ te jaam bi teewal ñu ko yàlla may tax muy topp yàlla mooy rek bëgg nga bu jaam bi toppati yàlla rek moo tax koo ñaan dafa bëgg a fal yàlla bi nga xamee nag ne nit du topp nit mukk lu may dafa ko waral su naay da du maye dara xañaan da bëgg keneen maye dara kooku kenn dara ko topp moo tax yaaram ne aji xañaan bu nekk njiit bu nekk sang ku xañaan nag moom la yaaram di wax ne tooñkat boo xam ne foo ko fekk mu mel ni moom lañ tooñ su ku xañaan rek la koy gisee ndax ko ñaan dafay saxe saxe mu bon jëmale ci ma ñaan yàlla delloo ko ci moom muy jàmbat dafa ci meneen saxe yàlla delloo ko ci moom muy jàmbat bi daa iman mooy tooñ te daa iman mooy jàmbat moom ngay fekk mu dëkk ci tooñ te mel ni moom la ñuy tooñ mu ngi mel ni ku fab aw doj sànni la ko bëgg a lukk sa bët dañoo ñëw lukk sa bët nday jorom mu sànni ak beneen bëgg mu lukk sa bët càmmoñ mu dee lukk bi càmmoñam mu sànni ak beneen bëgg a dem sa mbagg mu ñëw dem mbaggam mu sànni ah beneen bëgg dama mbagg mi ngi def mu ñëw dama mbagg mi ngi def ku ñëw de moom la ñuy def mel ni moom lañ tooñ te fekk moo tooñ tooñaan foo ko fekk noonu lay mel. dafa amoon benn buur am foofu bu mu bëgg jotaay bu mu toog foofu dañuy dana ñëw taxaw digal ko lii rek la ko daa digal nag képp ku la defal lu baax fay ko lu baax am la ku la def lu bon jarul fay bàyyi ko lu bonam la moromam. foo déglu bi nekk nag xañaan ko xañaan xañaan gaye ko mu jege buur bi ak saf bi ko buur bi taxoo xañaane ko ko be bëggul lu may génne ko xañ ko ba kanam rek mu génn àddina gënu ko mu daal di ne Fodé jooju waxal buur bi ne ko dama lay invité ñam ci sama kër mu nangu mu daal di ñëw ci buur bi ne ko kii yaa ngi ko fonk waaye li ñu wax ci yow buur bi ne moom lu war a wax ci man mu ne ko daf ne da ngaa xamee buur bi mu ne ko loolu moo koy mën a xamee mu ne ko soo ko waxee rek na nga seetlu bu baax da nga xam ne loolu loolu la jàpp ci yow daal di génn nag daal di lëngu waaye rek yóbbu ci néegam taajal ko palaat ak kooro sala kooro laaje ak soble yi ba muy jox ko mu lekk moom la gis naa bañ a lekk mu lekk dafa ko mu ne ko dama doon liggéey bi ak ñu daal di fox rek dalax nit ñi sax daal di àgg ci buur bi ñu ngi naka jegeel ñu demee di wax buur bi wax mu def nii ah buur bi naan li ñu wax dëgg la ñu koy liggéey dafa ne dama xasee jëriñ dëgg la gis naa ne misaal bi xam te buur bi ci aadaam mës a bind lettre ci loxoom lu may day maye xaalis daal mu koy joxe mooy bind ci turam ci ñeneen ñu jox ñu maye lu may loolu nag keneen a ko bind keroog nag nar na sax ba bindal boppam benn góor na la bu nekk ci ci réew mu ne ko maa ngi yebal buur bi yow bu lay jox lettre bi boite rek na nga ko fees deram bi nga feesal ko xatara yéen ñëw daal di jox ko su ko doon añaan daal di ko dogal ne ko may ma may ma lettre bi mu ne ko lettre bi xamul lu mu ne mu ne may ma rek xam nga ne buur bi du lu ma lay may amuñu ko jëlee moom rambaaj moom sa añaan ka mu daal di taw dem ci gouverneur ba ba mu ko joxee lettre ba ba mu jàng ah ne ko buur bi daf ne naa la rey léegi fees la campagne la feesal fa der bee xata ñu ne ko léegi mu ne du man du man keneen la ko bindaloon ah mu ne ko man du ma delluwante ak buur bi wax li mu wax rek laay def daal di ko xaaral rek dafa xawaay daal di ko fees feesal dara ma xatase yéen buur buur bi fees gis ne ñu di ci joxoon lettre bi mu waa góor bi ne ko waaw ñu ngeen demee mu ne ko lettre bi ma joxoon ñu ma liggéey rek daf ma ko ñaan xam nga ne day dugg ci sa loxo lu mooy da ngay maye ñaan na ma ko may may naa ko rek mu ne ko wax ma dëgg dëgg lu dox ko ci ba day waajur bis la wax ne sama mbir mi dafa xasee subhanallah naka laay waxee ci biir bi ñu ma xam ci ñoom ñu ne ko lu tax mu ne la mujjee woo may wax rek nga takk sa bakkan yi mu ne ko boobu moom moom moo ma invité jox ma laaj ak carotte ak soble ma lekk ko ci saa si mu ne ma dama lay buur bi jotuma dalax mi ci sax ma bañ laa lor ci kat moo taxoon ne sax suñu jëriñ bi ma joxee lettre bi moom ma ko ñaan may naa ko buur bi ne ko ku la defal lu baax day ko lu baaxam ku la def lu bon day ko lu bonam delluwaat ci palaasam bi di ko ñaan yëpp noonu la nekk